audu billah min ashaytaan irajim bismillahi irrahmaani irahim ginnaaw nuyoo bi ak bi kon ñëw ci sun bind tey day bind bi wara a jëm ci asaka asaka asaka nin ko xamee bokk na ci ponki lislaam mu nekk farata ju bu dee asaka moomu sëñ bi daa indi ay farataam farata yi nga xamee ni moom la ñuy tudde faratay asaka farata yi taxu koo bari asaka ay farataam ñeent rekk la moo yéene ak matum at ak mat nisaab ak ñàkk woo tuxal yooyu benn bi dana ko taxaw eh, danañ ci taxaw détaillé kon bi njëkk ci farata mooy yéene yéene joxe asaka yéene farata la ci asaka alal ji ngay génne di ko joxe dang caa war yéene asaka kon bu fekkoon ni ci misaal nit daa jël sa dara wala nit leb la dara a topp ko faye ko ko ba sonn mu bañ nga ne waaw far def asaka loolu lu baax ndax yéene woon ci asaka asaka ji la nga cay génne di ko joxe danga caa war a yéene asaka ba àgg sax foo xam ne boo ko boo ko boo ko tegoon ne nit ñëw ne laaj ne lii lan la ca sens nga mën ko wax lii asaka la maanaam asaka da nga ko war a yéene yéene joo xam ne eh, day nekk lu dëgg ci sa xol. mooy fas ci sa xol génne asaka ci lii ngay joxe waaw bu fekkoon ci dangaa may nit dara wala nit leb la dara wala ñu sàcc sa alal lu mel nga dem ba ñàkk xe rek ne maa ko defal asaka loolu du baax kon yéene mooy farta bu njëkk ñaare bi mooy mu mat at asaka bu fekkee ne day asakay wurus wala xaalis day bokk ci ay farataam lay tax aska war la mooy mu mat at waaye boo yoroon xaalis xaalis lu mu bari bari bu mu tujjee ba du la ci war balaa bala ci asaka war mu mat at mu at bu dee askay mbay moom saa boo ñoree rek ci la lay aska di ware saa ñoree xam doonte at mi da nga ciy ñoral meen at mi da nga ciy ñorali ay yoon yoon saa bu ñoralee rek war a génn asaka xaalis wala wurus moom dañuy sart wala day bokk farata yi mu asaka war la mu mat mu mat waaye mutul at boo yoroon ay milliards te amu boo amu amu amu ceewaat du tax war la ci faaw am ceewaat at mat sëkk asaka soog war muy ñaar bi ko ñetteel ci farata mat nisaab nisaab bu ñu ko waxee lim bi ngay am asaka war ca nisaab xam naa dañu gën a taxaw rek ci xaalis yi ci des moom xëy na ci téere yi ñëw dana ko jàng kon nisaabi xaalis dañ koy xool ci or or maanaam boo ko bëggee xam yomb na dangay xool benn garaam ci oor un gramme or lu tollool ci xaalis benn garaam ci or lu muy tollool ci xaalis CFA bi wala xaalis ba nga nekk buñ la ko waxee buñ waxe waxee nangam lay tollool ci misaal ñun la euh, vingt cinq mille lay tollool jamono ji benn un gramme un gramme vingt cinq mille la leen koy jaay kon vingt cinq mille yooyu ngay jël multiplier ko ci quatre vingt cinq quatre vingt cinq lum la jox rek ci xaalis xaman loolu mooy nisaabam mooy nisaabi xaalis kon quatre vingt cinq ngaram mooy ci or mooy nisaabi xaalis quatre vingt cinq garaam kon da ngay laaj tëgg ba ñuy liggéey ci wàllu or benn garaam loo leen koy jaayee luñ la wax ne moom lay jar vingt cinq mille vingt mille nu mën toll yow loolu ngay jël multiplier ko par quatre vingt cinq lu mu la génnee rek ci xaalis xam ne loolu mooy nisaabam boo amee lu toll noonu ci xaalis tam am ci yow at asaka daal lay war bu dee asaka boo koy génne tamit yomb naa génne. mooy alal jépp xaalis bépp dañ koy jël séddale ko ci fukk diffusé ko par diis lum la jox nga jël benn benn benn xaaj defaat ko séddalewaat ko ci kaat kaat bu lum la jox rek benn ba mooy nekk asaka ja moo dañu wax ne un million bu ne vingt cinq mille moo war un million bu ne vingt cinq mille mooy asakaam waaw ndax am un million boo ko seetloon ci fukk day nekk fukki ñaar fukki junni ñaar fukki junni boo ko séddalee ñeent day nekk ñeenti juróom juróomi junni ñeenti vingt cinq mille day vingt cinq benn vingt cinq nga cey joxe kon alal yëpp lu mu bari bari dañ koy def dañ koy séddale par dix waaw boo defisee dix jël benn xaaj diviser ko par cinq par barkaat boog barkaat waa ji dafa yor barkaat léegi nag benn ngay jël joxe ko waaw bu nga jël boo ko defee see barkaat bu dee daal di lu mu joxe rek ci eh, benn xaaj bi ngay joxe wala vingt cinq vingt cinq mille mooy nisaa bi un million kon de million cinquante mille noonu ngay continuer kon loolu mooy nisaab bi mu mat nisaab farata la bi ci mo mooy ñeenteel mooy ñàkk a toxal asaka ji daa bokk fare réew ma nga liggéey ba am ca lu mat a génn hmm, bu fekkee ne réew mooma am nañu ko yittewoo am nañu ko fa yittewoo boobaa day war nga daal leen koy jox bañ ko fa génn di ko yóbbu ci meneen réew waaw asaka yi bañ koo toxal ci réew ma mam ma nga ko amee di ko yóbbu ji meneen réew loolu farata la bu fekkoon da ngaa jël asaka ji génn ko ci réew mi nga ko amee yóbbu ko ci weneen réew di ko fajo joxe te réew mi nga ko amee am nañu ko fa soxla ñu ko aajowoo kon boobaa du baax dañuy wax nag bu fekkee ni réew ma nga nekk am fa nga amee alal ja ngay génne asaka am nañu ko fa aajowoo waaye nag am na meneen réew moo xam ne ñoom ñoo ko gën a aajowoo daal ko nekk bitim réew am fa la liggéey ba am xaalis bi mu war a génne xëy na foofu mu nekk ci bitim gis nañu ko fa soxla waaye nag xam na ne Sénégal moom ñi fi nekk ñoo gën a aajowoo kon boo dañuy wax ne asaka ji mën na koo def ñaari xaaj bu ko defee benn xaaj bi mo séddale ko foofa bi ci des mu daal koy yónnee ci réew ma gën a ñàkk am ñu wax ne sax boobaa da koy def ñetti xaaj benn xaaj ba mu yàmmale ko foofa yeneen ñaari xaaja mu yónnee ko ci réew ma gën a ñàkk waaye daal li ne bañ daal mooy jël alal jépp génn ko ci réew ma ko liggéeyee di ko dem di ko joxewaat feneen te yow réew mooma am nañu ko fa aajowoo loolu mu ko def rek mu asaka kon loolu mooy Eh, faratay asaka bu dee dañu ñëw ci asaka ñan lan ko war a jox eh, incha allah